jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek dañu koy topp ci site internet bi di Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek salaire njiitum réew mi président de la république di Bassirou Diomaye Faye ginnaaw nag biñ ne 4 millions 859 mille 302 francs CFA rek lay gagné weer bu nekk moom de la république Bassirou mbir mi nag ñu ngi ko daal di publier rek ci journal bi ñu dippee nag journal officiel mu ñeel nag patrimoine kii di président de la république mi nga xamante rek daal dinañ koy teg ci bopp nguur gi ni ki ak ñeent eh, ci weeru mars ci atum 2024 ginnaaw élection yi nga xamante ne rek gañe ko eh, ci tour ba bu ñu jógee ko foofu nag dañuy addu rek wax ci bor yi ak eh, bi nga xamante ne rek Diomaye Faye ci jëmi boppam rek jamono ji dañoo wax ne rek mi ngi ci yoon bi nga xamante ne ci la Macky Sall tegoon tànkam nag ginnaaw ay at laata muy jógee ko ci bopp nguur gi moom Macky Sall mi nga xamante ne rek mu ngi doon dénoncé bu baax ñii di agence yi ak seen condition yi nga xamante ne rek moom moom la ñuy doxalee jëm ci financement yi ak lu ñeel transition énergétique bi nga xamante rek eh, réew seen loxo jotu seen ginnaaw nag ñu ko doon waxtaanee bu dee nag mbir mu nu mel nag réew Afrique yi dong rek lañ ciy wax mu nekk mbir moo xamante ne rek ki mu fi wuutu di Macky Sall moom président de la République Bassirou Diomaye Faye mel na ni rek eh, ci ay ne rek def na ko foofu ca diwaan bu Paris doon fekkee nag Sénégal eh, daal dinay def nag ab discours boo xamante rek dafa daal di laal bu baax suñu koom-koom rawatina nag suñu gouvernance mondiale ginnaaw nag bu mu jëlee wàllam rek ci semaine sport bi nga xamante ne rek doon nañ ko waxtaanee ak lu ñeel développement kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di nay ab def ab discours boo xamante ne rek dafa laal nag wàllum koom-koom ak wàllum tàggatu yaram moom jiital réew mi rek daal di nay profito nag ci tribune bi nga xamante ne rek daal dina koy may gët ngir mu dénoncé nag wàññite bi nga xamante ne rek reeneen yi nga xamante ne jamono ji nag ñu ci yoon yokkute ci mbir mu nu mel nag dafa jàpp ne rek li nga xamante ne rek moom mooy wàllum fiscal nag dafa am évasion ginnaaw bu mu gisee ne conseil yu jaar yoon yi bëri na ak eh, financement yoo xamante ne rek fu ne lay wëlee ñaata dara setul ca mbir mu nu mel nag moo tax rek suñu koom-koom nag gën a dellu ginnaaw bu ñu bëggee nag mu dund rek faw ñu dundalaat li nga xamante ne moom mooy financement ak développement mu nekk nag mbir moo xamante ne rek daal dina koy traité nag waaye traité ko ak équitabilité bu mat sëkk ginnaaw bu mu waxtaanee bor bi nga xamante ne rek système bi daal dina koy am nag jaarale ko ci intermédiaire évaluation bi nga xamante a rek dafa daal di soxal Afrique wërngal këpp moom président de la république daal dinay wane nag ñàkk ànd gi nga xamante ne rek def na ko nag ci condition transit transition énergétique bi maanaam daal nu ñuy séddalee ñi nga xamante ne rek moom mooy ressource énergétique bi dafa gis ne rek yëf yi nag amul leen loo xamante ne rek tolloo na bu fekkee ne ñenn ci partenaires yi dañuy tere financement bitim réew rawatina nag ci wàllum énergie bi nga xamante ne rek dafa ànd ak gaz te ba ndëgg rek ñoom seen jëmmi bopp rek ñu ngay faral na di utiliser li nga xamante ne rek moom mooy source yi ginnaaw bu ñu gisee ne rek jaww ji dafa daal di am pollution te li ko waral du lenn rek du dul charbon bi ki di président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ngay daal di woote rek ñu daal di xoolaat nag li nga xamante ne moom mooy architecture gouvernance rawatina ci wàllum koom-koom wàllum politique ak wàllum koppar ci àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandikoo ci moom nag la mu daal di xamle moo dina yëf yi nag dañu ko donn rek après seconde guerre mondiale ginnaaw nag bi ñu passé réalité yi nga xamante ne moom la ñuy ci mbir mu nu mel nag lam ci bëgg wanee wane du leen rek loolu formation yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllum koppar ginnaaw bu mu gisee nag système international jamono ji nag ma ngay daal di weddi rek ak ñaata li nga xamante ne rek moom mooy ay réforme yoo xamante xamante ne nag waroon nañ ci war a mën a indi ay leeral lépp rek ñu jaarale ko nag ci jubal ak intérêt boo xamante ne rek intérêt ñëpp lay doon kii di Bassirou Diomaye Faye nag moom ci boppam rek mel na ni daal ma ngay topp rek tànk ki nga xamante ne rek moom la fi wuutu jamono ji di Macky Sall ginnaaw bu ñu gisee nag mandaam bi nga xamante ne doon na ko def ci bopp nguur gi jaarale ko nag ci bopp Union africain moom mi fi nekkoon njiital réew bu Sénégal nag dénoncé woon na ba noppi rek daal di sargal risque yi nga xamante ne rek moom moo nekk ci bor yi nga xamante ne réew Afrique nag daal dinañ nañu koy am ci transition énergétique bi eh, ci mbir mu nu mel ba nëgën ni rek ña ngay wéy di fay ay taux intérêt yoo xamante ne rek yu eh, koy def ci wàllum investissement ci réew bii di Afrique mbir mu nu mel nag la Macky Sall doon mu gisee rek eh, yëf yi daal dafa mel dafa am ak parparloo ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom nag nee na lii di pour cent ci critères nga xamante rek réewu Afrique ci seen jëmmi bopp rek daal dinañ ko yëkkati comme facteur xamante ne rek eh, dafa daal di subjectif ci ordre culturel ak lépp loo xamante ne rek wàllum kàllaama la eh, ci mbir mu nu mel nag dina amul lenn loo xamante ne rek eh, tey ji dafay wane ne suñu économie daal dinay stable bu dee ci wàllum énergétique ki di Macky Sall moom nag daf doon dénoncer rek double posture bi nga xamante ne rek réew occidentaux yi doon nañ ko am jëmale ko ci seen intérêt ndax Sénégal jamono ji nag war na jël ay mesures yoo xamante ne rek mesures y mucc ayib lay doon wala mesures yu wërngal këpp ginnaaw nag bu ko defee rek mu mën a tere lépp luy financement euh, ci bitim réew ñeel suñu ressources énergétiques yi lu ci mel ni nag gaz bi nga xamante ne rek euh, jamono ji mën nañu wax ne rek bokk na ci li nga xamante ne nag dafay daal di polluer te mën nag ni rek ñu ngi koy lu ci mel ni euh, këriñ bi mu nekk nag mbir moo xamante ne rek neen réew mi ci jëm bi boppam rek nañ ciy daal di daan ndax nag ñoom ñoo choisir seen développement jaarale ko nag ci mbir mu nu mel faw rek ñu protéger alam bi di kat yi nga xamante ne rek waxoon na ko ca moom moo ñeel COP COP 28 mu nekk jaar-jaar boo xamante ne rek jamono ji daal dinay niru lool nag ak discours président de la république di Bassirou Diomaye Faye niki samedi bi ñu génn jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngi am yeneen